waa Kébémer yëpp ñoo ngi nuy déglu. ci gor soosu nga xam ne ñàkk nañu ko. waaye ci diir bi mu dund liggéeyal na réewam. wallaay kon xam naa du ñu sori Baye Cheikh. dañuy tàbbi rek ci élément bi. na biir na biir. sàmm moom ma ci laaj ci mbiram woo nga naaf ci boo xam ne du ko neex ndax euh, mbiraan a jàng leen koy ñaanal rek avant lépp lu mu liggéeyoon yàlla na ko yàlla fay. fa am nekkit yàlla na ko gënal fii mu jóge ndax ku baax la ku bëggoon lu baax ku bëggoon nawleem fonk nawleem fonk nitam xam nitam ku bëggoon Kébémer ku amoon tamit vision bu gudd ci Kébémer waaye leen ne jaam ak pexeem yàlla ak dogalam lii moo neex sunu borom nit ku yaatu la nit ku baax la ndax man yàlla def na lu ci bëri dama naa ànd ak moom daan waxtaan ak moom ndax daf maa bëggoon ba ma daa wax naa ma Ndeye Ngoné ma doon banaa yaay ko dëgg may séddale ko séddaloo ma daan fàtt ma daan jàpp ci moom ba fii may wax yow Omar damay jàng ci lu bëri bëri ndax euh, muy ci wàllu kilifteef da daan wax naan jasta sàmm sama mag yi de bu ma yónni woon almet léegi ma simb sama buubu ministre teg ne jëndale ko ñëw soo koy solaate xam nga loolu nag jàngale la da ko daan wax nga daan toog ngay waxtaan Issa nga xam ne kii réewam yëpp lu jëmale Kébémer kanam la te maaseeg ñëpp tolloog ñëpp xeebul kenn Issa bu naan dugg Kébémer la ko dalee ci buntu Kébémer ba kër muy dugg seen biir kër grand place bu mu romb atelier bu mu romb groupe bu mu romb ak nu mën a toll ci âge ak nu mu mel dina taxaw nuyoog ñoom làmbisoog ñoom saafonteeg ñoom yëkkati ca la ko yàlla dénk jox xeebuloon kenn bu daan toog di recevoir danaan recevoir di recevoir di recevoir di recevoir di recevoir bu ma ne ko kii ànd ak yow mu ne waa moom mi ànd ak man la ma moom laa koy jox ndax yow mi ànd ak man loolu indiwu fi ñaari dispensaire yi ci Kébémer mais hôpital yi moo ko may dispensaire bi Diamaguène ak dispensaire bi ci Dakar jàkkee ci Kébémer seede naa ko. mu woddu leen ay napp moket si jaada lépp si jaa satala yi eau de javel lépp jàkka war a jumaa bu ne Kébémer ak li wër Kébémer yóbbu naa ba daaru Kébé seen dispensaire ba noo fa noo ko noo ko occupé noo ko équipé kon kooku yaakaar naa ni ku yërëmoon ko ne yéen ndax lii si boobu sori na yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nii ko. yàlla na yéex moom alaaj ñu ko jëng woyam bi dafa daw yaram daw yaram ñu euh, teg ko ci euh, hommage bi nga xamee ne ñoo ngi koy rendre kii di. Hmm. Euh, alaaji Issa Mbaye Samb. Hmm. Kébémer yëpp jooy ko. xam nga Baye Cheikh dafa am ñaar ñoo xam ni dañu sori ci man lool. Hmm. di fàttali lu bëree bari mu Issa Mbaye ak Pape Babacar Mbaye. ñoom. yàlla dogal li mu dogal ci ñoom. waaye. Baye Cheikh ma gisoon ci Issa sàmb Samb fonk bu mu fonk doomu aadama ba pare am bari wóllëre am sama benn mbokk géwél bu ñaan Amadou Ñang ma dooki daf ko fonkoon trop ba pare jox ko cër àndak ak moom ànd ba jekk waaye moo tax dëgg-dëgg yàlla faye ko maître Abdoulaye Wade mhm. fu muy dem dina ne dëgg ana Amadou Niang ma dooki moo koy ma dooki moo koy gunge moo koy gunge ci moo koy accompagner ci dëgg-dëgg ci jëf ci jëf ju muy jëf kon Issa Mbaye Sam mi moom la ko yàlla fayee Issa nag li li aju ngoone wax ci moom kenn mënu ci yokk dara pal yi Baye Cheikh dafay nekk ci mbagg yi day jóge ci mbagg yi demaat ci yeneen mbagg yi mhm. yàlla na ñu koy fekke te di ko tal amiin waaye parcours booy def jëf ca lu tax loo xam ne lii soo wanee ginnaaw wala pal ga yorotoo ko ñu xam ne dëgg-dëgg am nga loo jëf. Mhm. Issa nag moom bàyyi woon na loolu xel bàyyi woon na tey xel jëf ji mën nañ la ko defal takkala ndomba tàkkali tey soo ëllëgee nga teg ñu tekki ko foo bëgg a dugg dugg fa. Mhm. dafa am ma benn yaay bu baax bu ñu naan ajut ndeysaat ba sax basa dama am du may gan mi su ma salee saako sax mën naa dugg ci biir nit ñi. Ah, ndax am na loolu jëf a tax. jëf tax de waaw mu ne ma lu ma war lu ma war a mel mel naa ko. wallaahi tey su ma neexee sol saako jaar ci biir doomu aadama yi. kon nit ñi nañuy bàyyi xel loolu. baax rek koy maye ba rëy amul maanaa. déedéet yokk sa bopp amul maanaa. déedéet teg ko ci yoon. liggéey li nga war a liggéey. fonk doomu aadama yi jox leen cër. bind sa bopp ndax yàlla yi. yàlla ku fonk doomu aadama yi fonk la dëgg la de mais ku leen ginnaawal tamit dëgg-dëgg xamal lu mu yàgg-yàgg ci ginnaaw rek ngay féete mhm. isaa nag ku fonkoon doomu aadama la mhm. ku amoon ngor la mhm. ku bari wëlëre la ma daal dama ko naw lool lool ci Amadou Ñaama Dooki mi nga xam ne nii moom la moom lañ ko faye tey maître Ablaye Wade ba mu jox ko zéro kilomètre Ablaye Wade ba léegi bàyyiwul dóor de zéro kilomètre la ko jox. mu ngi terle ba tey. ba tey mi ngi terle. ni ko coro te loolu dëgg-dëgg ku ko defal sa sa mbokk moo xam ne sa yéen bokk askan. Mm-hmm. te nga xam mbaax ak yiw ci moom. addina mm-hmm. yëpp war nañu yëg ne daal dëgg-dëgg. Mm-hmm. Issa mii daal dem na. waaye bàyyi na ko Maître Abdoulaye Wade mi nga xam ne ba tey mi ngi ci li mi ngi ci lu baax bàyyi sax. tey daal kii laa la indil. di ndokkeel nag bu baax waa Kébémer yëpp. ndax xam naa ne tey am na tey lu ñu yëg. rawatina Lamine Thiam ma nga xam ne moo fa nekk. moom itam maa ngi ko sargal di ko ndokkeel ak daal képp koo xam ne kii daal famille bu baax nga famille bu yiw te nekk ci dëkk boobu nga xam ne mooy Kébémer Baye Cheikh. jërëjëf El Hadj ay nit yu baax. li ñuy wax waa Kébé maire yi rek ku ñëpp jooyal war ta jooy wallay wallay ndax Issa Mbaye Samb moom Sénégal mm. yëpp ko bokk ñoo ko bokk euh, Kébé maire jooy na ko ay mm. mbokkam jooy ko mm. euh, tey xam naa fàttaliku gi yaram ñëpp daw wallaahi wallaahi euh, ñu la ciy gërëm bu baax fàttewoo benn yoon ñu baax déedéet déedéet fàttewoo benn yoon ñi am valeur fàttewuloo mag ñi wallaahi moo tax neexoo fàtte déedéet déedéet sa taxawaay yàgg élage onze nag mu ngi doog a jot ñu ngi wàcc jàll ci anniversaire yi dafa am anniversaire boo xam ni ajot ki ne lam yónnee euh, message spécial. ndeysaan euh, pour ma euh, jàllale ko ndax kii anniversaire ki a démb woon sax anniversaire bi. dafa sori ci moom di ajaratu Pénéré ñaan yaayu maître Dior Diagne. oh mi. Mm. Baye Cheikh Sassane de Taba. Mhm. la yàlla boole ak Ousmane Diagne. Mm. mi nga xam ne réew mi kenn dootu ko fàtte. mi nga xam ne kooku la Cheikh na Sidiati daan wax ne mooy sama doomu ruu. wallaay mu àndoon ak Baye Mbagnick Seck. waaw nekk tamit koo xam ne kii Baye Cheikh penere moom moom la jéeg ji daan waate. walaay moom la jéeg ji waate waaw yaayu joor jaañ du ma gën. <laughs> ci ci jigéen ñi njëkk dawal oto ci réew mi. <laughs> dëgg la moom daf ci bokk. am valeur ba pare am <laughs> maana ba pare macha allah moo tax mu bàyyi ñoog joor joor jaañ mu baax. wallaay wallaay kon daal dëgg kooku yaay ju ñu ko sodal joué ak joué ndax am na am na njariñ. wallaay am na njariñ am na njariñ am na njariñ. ci noonu laa ko tuddee. waaw joor jaañ. waaw jur jël jur jël. wallaay ku ko jur jël. jur jël foofu nangu. waaw foofu nangu jur jël laa ko tuddee. ndeysaan ndeysaan ajatu jor Diagne daal ku ko jur jël. Euh, donc ñu euh, bàyyi euh, El Hadj Malick comme il faut que ma lay code phare ah, nga tegal ñu message bi nga xamee ni. ajatu kii